Abdoulaye Diop tey jii foo ñu yóbbu. ñi ngi lay nuyu di la fay di nuyu ñëpp ñi nga xam ne aussi ñu ngi ñuy seetaan tey nag dañu ñëw ci biir Dakar benn quartier bi nga xam ne siiw na fii muy Sandial Sandial nag ñu bari xëy na xamuñu ko moo tax ñu bëgg a ñëw rek laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu waxal ñu tur bi fan la jóge ça va sant yàlla. grand Sandial laa bëggoon a xam tur bi ndax xam ngeen li muy firi. Sandial non histoire Sandial wala. Sandial tur bi ci boppam. non muy firi non xaw ma woon nag non xam ci Sandial. ah naa turu Sandial rek mais xaw ma si dara yéen ok ça va grand. ça va bien alhamdulilah. turu lañ doon laajte. Eh, turu Sandial moom ah wax yàlla xaw ma fu mu jugee quoi mais lu baax laa xam si moom tu vois ñun ñii dañ ciy dem fooyee ñoom tamit dañ fi ñëw. presque ñu ñëpp benn lañ quoi tu vois presque benn koñ mi la waaw man loolu rek laa xam si loolu mais coow bi moom ah dëgg yàlla xaw ma fu mu jigee quoi. ça va grand. waaw ça va Cheikh bi ñu ngi ziar bu Sandial lañ tey. turu Sandial Sandial bi ma xam moom koñ la. te am na tamit équipe nawetaan. moo daan boole sax ñun suñu équipe fii xandaalu lañ dëkk xandaal daal nawetaan lañ seekoon mais koñ la biir Ndakaaru la nekk waaw loolu daal laa xam si Sandial daanaka waaw. ñoo ko déggandoo ku nekk ak li mu wax ci li nga xam ne moom mooy euh, cosaanu tur bi nga xam ne moom mooy Sandial dañuy dem rek ci ki nga xam ne moom mooy le grand Kalidou mu expliqué ñu tur bi fan la jógee euh, ak lan moo tax euh, ñu tuddee ko Sandial. kon xam naa ñi ngi ak grand Kalidou grand ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen ziar. xam naa dañ la fekk si tey ñu bëggoon a wax rek ak histoire li nga xam ne moom mooy Sandial ndax mun nga ñu cee ñëwal. plateau Sandial les gars de classe gars yu am fula gars yu am fayda gars yu am personnalité gars yu set gars yu civilisé lu baax lu ne Sandial la franchement parler Sandial moom amu wax dëgg yàlla. mun nga ñu wax tur bi tur bi fu mu jógee. Sandial tur bi tubaab la woon xam nga tubaab yi. la plupart foofu ñu bari ay turu tubaab dañ leen tuddee hmm, looloo tax mais Sandial moom ku ko xamul moom dégg nga turam. kon daal bi ci turu tubaab lañ jël ñu tuddee ko li nga xam ne moom mooy quartier bi. exactement. moom lañ tuddee dooru sànjal te xam nga sànjal lu ci neex mooy ndeysaan bu ñu musaan ñun dañ naan fo dañ naan dem di fa fooyee foofu la ñuy xamoon dañ naan fo ñoom it ñëw fii di ak ñun xam nga xandaalu sànjal loolu moo doon dër bi quoi ci nawetaan yi surtout nga xam ne ñoom dañuy ñëw gañe ñu ñu nit ñu gañe leen ñu gañe ñu gañe leen te du am benn coow su ngoon jotee ñu solu dem fecci balafon tu vois ànd kenn mësul xuloo kenn mësul xeex ay gars yu civilisé gars yu set gars yu propre vraiment wax ñu ci wàllu sànjaal ñi doon bëgg solo yu rafet yëpp dañuy ñëw pour foofu la ñuy ñëw di jënd li nga xam moom lañ soxla ñu ñu am euh, salaire la wala étudiants yi nga xam ni dañu am seen bourse ñëpp foofu la ñuy ñëw. ñëpp faroon daje parce que ñëpp faroon daje day fu nga xam ne ville de classe la ñëpp bëggoon nañu daje sànjaal ku solo tam fa nga jëm parce que c'est en ville plateau c'est en ku solo fa nga jëm soo fa jaaroo nag mel ne jaaroo fenn franchement parler yu di ñoo fa nekk gars yu civilisé franchement parler j'aime na bu ñu ko déggee ci li mu wax ci Sandial rek ni turu tubaab la boo xam ne moom lañ jox quartier bi comme euh, mbedd yu bari yi nga xam ne ñu ngi fii ci plateau kon nañ koy jaajëfal rek di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen incha allah. voilà El Hadj Mor euh, Sandial euh, xam nga fa bu baax de wala da nga fa doon da nga fa doon dem di xéewlu ji. Oh, <laughs> Sanjal moom dama ko dégg rek. dama ko doo fa daaw fa woon jaar. <laughs> <laughs> mais c'est vrai que benn ruq la boo xam ni léegi nag ñi ngi déformer tour bi. ñi ngi koy hmm. tuddee ruq disquette. parce que en fait bu njëkkoon Sanjal ay cantines yi fa nekkoon ay solok yooyu lañ fa doon jaay. moo tax waa ji di wax naan gars yi propre ñoo fa doon ñoo fa doon nekk ak euh, gars yi nga xam ni daal dañu bëgg seen bopp. ay les sapeurs boo bëggoon ay John Renfort ay John Renfort ay. Hmm. di gars yi dañuy daw sànjaal dam kii ko boo bëggee également ay costume yu bees gars yi dañuy dam foofu mais léegi dafa dam ba fëgg jaay bi moom moo fa ëpp parce que dafa am ñuy lal ci suuf di jaay ay yëre jigéen nag ay haut ay ba ay euh, kii ba ñu tuddee ko rukku disket bon euh, voilà nooy nag ça évolue selon Euh, disons jamono bu muy euh, bu mu tombeel fi mu ne nii ñi ngi naan ruq disket mais sànjaan la woon ak euh, vraiment ñoo xam ni dañu bëggoon di sappe ñoo fa doon fréquenté mu nekk genre concours de sap à la dakaroise bu doon am foofu voilà moo tax sànjal bi loolu la ñu bëri jàpp ci moom mm-hmm. ah kon Cheikh Diop yow mos nga dugg non est-ce que Mor jógewu fa est-ce que Mor jógewu fa parce que Mor tey li mu sañsee c'est trop <laughs> jógewu sànjal Thiès laa jógee. <laughs> yaa fi sapeur bi voilà merci euh, donc. Euh,